téléspectateurs yu la Bantamba TV mbokk yi ñu ngi leen di nuy waaye amaat nañu mbégte ak contentement bu mag jàkkaar waat ak yéen ci biir Bantamba TV mbokk yi tey ñu ngi Tëngéej tey Tëngéej la ñu ñëw dëkku maam Cheikh tey Tëngéej la ñu ñëw dëkku ay ndaanaan yu bari yoo xamante ni ndeysaan ay lébu ah, nga xamante ni mën a wax lébu te waxoo ah ndaw rabbin wala nga wax ah, ay yeneen i cosaan yoo xamante ni nii baaxoo nañ koo dégg. ci lébu lébu du jël alalu jàmbur lébu du tooñ lébu du def dara lu dul jaamu yàlla gëm boppam nangoo liggéey des fois nga dégg ko mu dem géej ñëwaat des fois mu sedd guy nga gis leen ñu dem géej ah daal di ñëwaat loolu moom mooy lébu moo tax tey mbokk yi ñu ngi fii ci stade Ngalandou Diouf mu Diouf tey ñen ñoo woote foofu Wario Events Wario Events fas yéene dugg ci li nga xamante ni moom mooy làmb tey mooy seen première journée boo xamante ni fas yéene nañ koo dugg waaye nag ñu ngi leen di wax naan leen bienvenue dal leen ak jàmm ci làmb waaye dal leen ak jàmm ci la Bantamba TV tey nag bis la maam Cheikh maam Cheikh tey bis la boo xamante ni Wario Events tey ñoo ñu fii ci arène national tey moo nekk seen première journée ah fii nga xamante ni mooy stade mu Diouf nga xamante ni Alpha 2 la ak Tibless ñoom ñaan ñoo fas yéene jàkkaarloog fii nga xamante ni ah ay ay ndaanaan yàgg nañ cee léegi maam Cheikh yow laa àndal ci caméra bi mbamba ci micro bi ñu xool ambiance ah xool li nga xamante ni moom mooy bàkk ñëw ñu ñëw ci ay way ñëw ci combat yi nga xamante ni moom moom fi jot am maam Cheikh ñu dem. temps bële nañu ba ñu ngi ci deuxième mi temps bi waaw waaw dañuy bëre dañuy bëre Alizé ak fils sa jaxaay yi sa jaxaay ak Alizé ñoom ñaar seen bëre metti na ñoom ñaar kenn ku ci nekk mayoo sa dara ñoom ñaar ñu ngi jàppante ci teewaayu Seydina ñoom ñaar ñu ngi yow sama xarit nga yëkkati ko dongole tegaat dongole na ko daal tegaat lu xew arbitre arbitre lu xew xolikoo nañ kenn ku ne na lu moroomam di safaat Alizé arbitre bàyyi leen Alizé fils de Fils de Jaxaay daa taxul dara man a jaaxal Fils de Jaxaay Alizé waaw Modou Lo day yéene ñëpp Fils de de Jaxaay Alizé Alizé fils de Jaxaay ah ñi ngi doorante ñoom ñaar jàppante nañ ñoom ñaar Alizé fils de Jaxaay mbëkk Alizé door na mais daal moom Alizé mi ngi koy dàq na Demanarlo. maam Cheikh maam Cheikh nee na ardo ne ko kaay jël tuus bi day dem ardo ndeysaan ardo Alizé ardo waaye Alpha 2 bokki mooy ndeysaan Alizé fils de Jaxaay combat bi daa métti man ko Alizé fils de Jaxaay combat bi daa métti Alizé ma nga ardo daa naa ni ndox àggali combat bi. Alizé fils de Yaxaay. arbitre sifflé waat na ñu ngi lewaatoo Alizé fils de Yaxaay Alizé mbokk yi moom moo féete à droite fils de Yaxaay féete à gauche arbitre baa ngi wax ak ñoom na leen bëre leen bëre leen. Alizé fils de Jaxaay Alizé fils de Jaxaay Alizé fils de Jaxaay fils de Jaxaay waaye combat bi daa yàgg lool ah. waaye combat bi yàgg na waaye Alizé cokkaas ma mais dalul Alizé Fils de Jaxaay Alizé Fils de Jaxaay Alizé mi ngi def ay déplacement Fils mi ngi koy topp kii pied droite ma xool kii pied gauche Alizé am nga benn avertissement un waaw li mu wax ak ñoom waaye li moom jaxasoo arbitrage la alise fils de Jaxaay ndeysaan jàppante waat nañu oh crochet droite boobu daloon Alizé fils Alizé ni baaxul dafa yéex ah mbéj na ko Alizé fils de Jaxaay Alizé fils de Jaxaay barki yàlla Alizé fils de Jaxaay moytul moytul sa mâchoire bi Alizé xeex ñi xeex attention Fils de Jaxaay moytul crochet yooyu muy dóor laaw yooyu lu xew na ndeysaan Ardo de Jaxaay Alizé fils de Jaxaay looy eh, jeex jàmm ak fëgalum ngor. ban heure. quatre heures. incha allah ñu ciy oo nag ñëpp presse ñu kenn. doomu aadama. ak Bib Diop dañ fay jàkkaarloo ci même jour dañ fay jàkkaarloo yëpp ay drapeau la ñu ngi ñëpp bàyyi ñu kenn. Badou Mbaye ngi noonu. Alizé mii moom combat bi métti na di ah Alizé de ñu koy nag bopp bi ndeysaan Alizé ndeysaan ak fils de Jaxaay mbokk yi Alizé moom moo droite fils de Jaxaay fils de Jaxaay combat bi metti na ah. combat bi metti na combat bi metti na fin temps fin temps fin temps Alizé fils de Jaxaay match waaw waaw. waa yàlla Bamba. am nga jàmm. a fogole séeréer mi simna nun. waaw mi a paax. waaw mi gidma Fabou a paax. mais dafa mel ni benn Siteu man wax ma si leer gi man maay leer gi nga ma Siteu. xanaa yéen ñaar bokkoo leen dëkk. kan si. Siteu man dëkk. Siteu sama mag la sama grand la. di ko ñaanal jàmm. waaw nga andi di bandi bandi. waaw di sant yàlla rek. di sant sama xarit yi parce que ñëpp si jàpp. sama bokku mbër yi. ku si mel ni 2S. Uh-huh. maa ngay sant Lyon waa Kaay Baax yi sama grand petit Baye Fall. barki alxuraan ama seen fay bu baax di sant ñi nga xamante ne booy bi démb Kaolack la jógee. mais combat bi dafa gaaw wala. dafa gaaw xale ah am se maa ngay sant bu baax di sant sama turandoo sama toomaam yi kii day dégg lu ne ngir man barki alxuraan bamba mais laay waa Kaolack laay laay moo leen di wax ma fii damay sant di di sant waa Kaolack di sant sama papa dan bu baax a baax a baax a baax a baax tamit ku si mel ni Eumeu Sène Junior gaa yi nga war a jël mu bëre ak ñoom waaw xam nga sama père Laay Ndiaye maa ngay sant bu baax moom su ko yàlla fayee xolam man la naan laay lay ni ngay bandi bandi kan si barki yàlla sama doomu ndey tamit maa ngi koy sant. ay mbot ci loolu. maa ngi nii rek si la ma newoon. am nga jàpp. sant yàlla ba alhamdulilah. mais damaa dem sa adversaire mu ne bu la jàppee doo doy. loolu loolu mënul ne ba arbitre sifflé ma xam ne lépp dëgg la bilaahi. nee na fecc nga ci am. te dama ànd samay mbokk. waaw ñu sas ma xoolal tribune bi ma tribune bi ma xool ko. mais xale yaa maam Cheikh maam Cheikh déggal li déggal leen waaw waaw mais xale yow laa yaa na ni. bilaay walaay aw ma seen fay. ak Serigne Babacar Sy. mais li dafa gën a xool xale yi yàlla suturaal seen kanam tey. maam Cheikh da leen di bégal. koy bàyyi tey bu soobee yàlla. mais tey est ce que du li bu ñëw nañ. ñëpp a a ma. la war. yàlla na yàlla ànd ak la war a billaahi walaay taalaay. mais saa yi war. bu arbitre bu arbitre billaahi ba laay bàyyi si biir arbitre tey mën la yëgee sama loxo. mu ñëwee mu ñëwee lu mu ñëwee pare naa su ko dee bëri doo doon wax. buy neexee pare naa su ko dee bilaay ma doogam daanu. buy neexee bu bëree ko sax. bu bëree. bu bëree du yàgg. lan moo la may loolu. bu bëree du yàgg. moo la may loolu. nekk booy bu ndaw di liggéey. waaw am sama waa écrit nekk di di ma di ma tàggat su ma nee ñoom doomu daangu gaa yëpp xam nga moo tax. mais xam nga liy cuune du leen indi. am ma seen fay barki Serigne Babacar maam Cheikh. maam Cheikh jëlee ma lii maam Cheikh dégg loolu nee na nga jël loolu maam Cheikh. am ma seen fay yàlla na ñun ñii lañ am ñi lay tiitaroo saa su ne saa yuy génn ñoom ñoo ñu taxaw duñu dooleel moo tax duñ ragal dara mais a saram nee na tey bu ko jàppee du doy du am dara ñoo mën ñoo ëpp doole ñoo gën a féete xale ñoo gën a soxla ah. bilaay wallaay maam Cheikh dégg nga loolu maam Cheikh tey nee naa ñëwee tëngee suñu yaram day daw maam ku ma làmbaa yaa ngeen ko dégg na te dañuy bëgg leen teg yéen ñu dem ba léegi ndeysaan mbokk yi at bi bisimilah na combat bi ci diggante Boy Thieky ak ki nga xamante ni moom mooy ñaajo Diamniadio Thiatou ñaajo moom moo nekkee à gauche waaye Boy Thieky moom moo nekkee à gauche bëgg na ko yëkkati da koo bëgg a yëkkati Thiatou ndeysaan ñaar. ku ci nekk yaa ngi jàpp sama morom bëgg na ko kal bëgg na ko kal caatu jam ñaajo luy xew caatu jam ñaajo luy xew ay waaye ndaw li nga amoon ay li nga am mais mais bi moo dàkkoon ci face to moo dàkkoon ndax caatu jam ñaajo moom mooy njool mi Bamba Thiam moo doon bi ne sama ma juree la ni ma nit moo tax loo ci mënta dégg ñoom ñaar lan waxoon ñu ngi koy bëree ndax combat bi amul round observation bi. déedéet dañoo ñëw rek jàppante. waaw loolu mooy làmb xale dama ko ci bëgg bañ a yàggale amateur waaye tey Bamba waa Rio Events si ñoo woote. ah ñoom ñoo woote tey tey bisu le 17. le 17 février fii ci stade Ngalandou Diouf ndeysaan mbokk yi ba léegi sur la Bantamba TV tey. waa Rio Events ñoom ñoom fi woote waaye ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp sa mu morom taxaw ki nga xamante ne moom mooy caatu jàmm gën caatu jam ñaajo ak ki nga xamante ni moom mooy cikki booy cikki ba léegi ñoom ñaar ñu ngi jàppante atte naa eh. xeex bi ah boo leen ne xeex bañ atte leen ngeen mën a ba kenn ku ci nekk am nga benn avertissement booy cigee ak caatu jëm ñaajo caatu jëm ñaajo mbokk yi moom moo nekk écurie Jaxaay Benno moom nekk écurie écurie Falang Falang ndaanaan la woon moo nekk écurie Falang. moom caatu jam ñaajo. waaw ndax dafa mel ni Ciki Kër Masaan mbooloo la nekk. waaw. loo ci mën booy Ciki waaw booy Ciki. Falang tamit champion la woon. ndeysaan lamb yàgg na ci réew mi Bamba Thiam. mais lamb yàgg na dalal ay ndaanaan. yàgg naa dalal ay ndaanaan ay ndaanaan yàgg noo moo tax xale yi des fois maa leen def leen ndànk. ndeysaan ndax ñi fi mag ñii defoon. waaye seen way du fay. seen way du fay waaye ci biir loolu Ndiaga Star mi ngi nuyu waa àdduna wu nuyu waa diaspora bi nuyu fa mu dëkk. muy Kër Massar Bamba ca mbënd ba fa laa yeewoo. waaw maa la loolu waaye sama xel moom moo dem maam Cheikh. maam sama xel moom moo dem ci Nastour voyage. Nastour voyage. waaw Nastour voyage. bari na loo xamante ni journée bi tay moom mooy sponsor li non dafa bari sax ñoo xamante ni tey ji bu ñu tukkee yàlla ak moom la Bamba Thiam li nga wax dama koy dëggal ndax damaa joxe woon avance tegal nga waaye jëli naa ko jëli ko ndax Nassour voyage Nassour proposition yi ma tegal mais Nassour ndaanaan la voyage bu gaaw voyage bu baax mais dafa mel ni dañoo mitaan <laughs> waa mitaan du mën a ñàkk mitaan nañu ñoom ñaar mais kii waru woon defar ngembam nii ah ndeysaan arbitre bi sifflé waat na mbokk yi ñu ngi ci deuxième mi-temps bi bëre nañu ba mi-temps ñoom ñaar ci diggante caatu jàmm gën ak booy cikki waaye mais man man man sama digganteeg jàmm ñaar eh, sama digganteeg. Euh, waa jàmm gën. soo sama digganteeg jàmm gën lu ca xew. loolu nëpp moo feeñ <laughs> yaa ngi lu ma mës saam. da gel. yaa ngi wax lu ma moo tax xel mi ne ci waa jàmm gën. man damaa ñëw rek takk <laughs> damaa ñëw rek takk jabar doxaanu ma. Seydina <laughs> Seydina ka ragal jabar ji. ndeysaan Seydina ndeysaan soxna se rek laa ragal. waaye ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante ci diggante Boy Ciki ak caatu jam ñaajo ba léegi ndeysaan ñu ngi fii ci Tëngéej ba léegi ñoom ñaar ñu ngi jàppante caatu jam ñaajo ak Boy Cig waaw am na opportunité yu bari yu mu ci combat bi mais def waaw surtout loolu ndax boo xoolee moo sut laf moo pronos saa yi takkee war tegal 16 rek da ngay gis mu daal di rocceeku waat te li ma jaaxal li ma jaaxal caatu jëm ñaajo moom moo moom moo ëpp moom laa la wax mais ëpp ko doole ah ko doole da ko ko doole moo tax saa yi takkee ci di day fitteeku mu daal di action continue la war a bëre moom caatu jam ñaajoo warul tànte rek dikki riposté mu daal di recommencé waat à zéro looloo yàggal lamb ji looloo ko yàggal looloo yàggal lamb ay waay at bi bisimilah waat na combat bi ci diggante caatu jam ñaajoo ak ki nga xamante ni nii moom mooy boy ciki Ciggi moo nekk Kër Masar mbooloo. mais bu ñu wax Ciggi sa xel demul ci Gris Bordeaux wala wala Maodo. faaw sa xel dem si ndax ñoom ñaaray ay champion la. booy Ciggi. booy Ciggi ak caatu jëm ñaajo. te mooy caatu waaw. ndeysaan saa bu gënee yàgg arrangé booy Ciggi. saa bu gënee yàgg. arrangé booy Ciggi. lu waral loolu ndax euh, boo xoolee caatu jam ñaajo dafa commencé sonn ah daa commencé sonn egg na ko fu sori da ngay daan wala génn nga saako yi kon day am deuxième avertissement booy ci ngi boo expérience gis nga day am deuxième mais fii si avec gis nga léegi de moom boo bëree boo sax ak noo génnee. waaw rek gisuma fi avec gis ñoom ñaar jàppante nañu kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp sa loxo moroom. caatu jëm ñaajo ak Boy Cikki Boy Cikkee ñu wan ginnaaw caatu jëm ñaajo moom moo waaye moom moo mais Bamba Thiat utilisé wul Ranos Ranos la. wu ko. déet déet. mais bu ma doon moom damay xeex. boo wala boo xe da ngaa war a xeex. door a bëree. gis nga Cikki da ko bëgg a dóor tànk fiile ko. waaw Thiat fi instant yi da ko waroon dëpp sol si geeg moom ëñ ko ba tax ko ci biir bi songale ko. waaw waaw wala bu ko songalee mu cëppeel mu door ko jaxabal. maa la wax loolu mbër dafay joué ci sa moo tax booy jëm numéro 2. di sànq neex la si Ranos am lay utiliser daan la. waaw lan am na ñu naan est du sarak. saa yu bëree woo man de ma Ndiaga Star gis ci combat bi moom Boy Diop numéro. ba da ngeen a nuroo. man teg mbër bu ma woo la ma ci xalaat ci conseil jox la ko dañoo nuroo waaye maa ko dàq. ñoom <laughs> maa la mais zaan ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante. ñoom ñaar ba léegi. at bi jug na di wax ñoom. day àtte indiwaat leen ci digg géew bi. mais booy ciki fu bëgg a dem arbitre bi sifflé waat na combat bi ndeysaan làmb làmb daa metti làmb daa metti caatu jëm ñaajo ak boy ciki ba léegi caatu jëm ñaajo siggi na ah waaw nee naa la boo nee boy ciki rek sa xel day dem ci Gris Bordeaux wala sa xel dem ci Gris 2 ñooñu ñëpp waa ciki lañu maa la wax lii. di ñoom ñaar ñu ngi jàppante ba léegi waaye bu combat bi jeexee nii caatu jam ñaajo la ñuy jox victoire waaw bu jeexee nii caatu jam ñaajo la ñuy jox ndam li ndax moom moo am benn avertissement caatu ciki moom moo am ñaar wala booy ciki moom moo am ñoom ñaar ba léegi kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp. mais jam ñaajo dafa jafandu rek. waa fi mu ne daa jafandu ay noppalu. dafay noppalu booy ci kii tamit mu ngi daj ay coono mais est-ce xam na ni adversaire am dafa son sa adversaire bamba da nga koy natt ci biir bërëb bi compteur lan lay joxe. loolu dafay am solo nga xam ni kii est mën naa dem war a mënul dem bu fekkee yaa ko gën a baax condition nga appliqué ci kawam. Hmm. mais mbëri duñu bàyyi loolu xel. nga ni sëñ bamba. balay sa buri sëñ Mbàkke ak Maram ma sa wàllu mi ci naawel moom la ñu tuddee Bamba Thiam kookoy maam Sëñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axlaa ndeysaan kookoy sëriñ ñëpp Cheikh Ibra Fall isa jëy Fatou pendak lay sukaabe ngoone jëy dammel ma ko dammel jalaw dammel Samba Yaaya Fall dama ciy def ko ndax damay bañ ñu dékoté ko réew mi yëngu yow yow da ngay ndaanaan yow da baax ba léegi ba léegi ba léegi ndam demul ndam dikul mais ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante. waaw waaw ba tey dara xewul sotteegul de xaw ma nag ba xam dina sotteem déet mais sotteegul de dara sotteegul waaye te dafa mel ni Bamba dafa mel ni gars yi dañ commencé sonn ah. waaw dafa mel ni coono dafa tàmbalee ñëw. waaw la la la fatigue commence à se faire sentir moo tax l'instant bi ñu ngi koy négocier mais na ci ci kii lii muy def ni ah, ah, ah, du avantage am parce que bu temps bi jeexee. ke moom avantage. booy jam naajo moom moo am avantage parce que bu temps bi jeexee moom la ñu jox victoire temps bi jeex na. kon kon moom moo war a bëree. temps bi jeex na ci moo waroon bëree. jéem a jeexal combat bi. bi jeex na. temps bi jeex na. arbitre bi mi ngi laaj ay zizam. waaw waaw. caatu jëm ñaajo daan na ko moom la ñu jox victoire daan na ko par avertissement ne woon naa la bu jeexee nii ah yow yaay ñàkk Abdou daa ngi wax ak ñoom di leen wax le làmb nangu ak le làmb bañ nee na sifle moom moo leen di boole waaye sifle moom moo leen di tàkkale ci diggante ñagas buy kiri jaxaay bennoo ak laay Pythagore numéro 2 ndeysaan Bikiri Ndaggu Guèye ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ñagas numéro 2 xam nga ñagas 1 moom mooy bëri arène nationale ñagas 2 moom mooy bëri ci Tëngéej waaye làmba ngi noonu làmba ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi waatoo jàppante ñoom ñaar kenn ku ci nekk danga ngaa wéeru sa morom lu kum daje. ñagas numéro 2 ak laay Pythagore numéro 2 ñagas ak laay Pythagore ñoom ñaar kenn ku ci nekk bëgg na ko jël luy xew luy xew daanu nga daanu nga daanu nga. daanu nga daanu nga daan na ko maam Cheikh laaj ci loo ne. waaw mais maa ngi nii rek sant yàlla bu wér ah. mais tey yow yaa indi laaj numéro 2. waaw tey man maa indi numéro 2 bi am kontaan bu wér a wér parce que kontaan nañ trop parce que combat bi da koo jël combat bi yàgg lool mu def ci ay yu bëree bëree bëri. mais tamit kontaan nan parce que yàlla suñu borom may na ko bu neex quoi vraiment. bañ tuddee la mbër. waaw mais ba nit tuddee la boppam loolu. waaw mais kii sama rakk la à part loolu sama rakk maa ko mooy loolu quoi vraiment jàmbaar la gërë la ndaanaan la quoi. mais dañu yàgg jéggi. di sant ñëpp ah di sant waa Jandeer bi yëpp di sant sama sant bu baax sama grand père la Pythagore waaw di sant waa Jandeer bi yëpp amoo seen fay waa Kër Sega. non booy du ma ñoom wallaahi du ma ñoom ci làmb eh. barke Seydina Mohamed no bëgg a rek yàlla xam na loolu bëgg a bëri ku ne ma ne ma taal laam président Petersen maa ngi koy sant bu baax a baax a baax Cheikh Sarr Sey Diop borom France maa ngi sant ñëpp bàyyi ma kenn Massamba Sylo yaa ngi dégg ñoo jàppale si combat bi yëpp bàyyi ma kenn mu lim la sóoru xuma policier maa ngi sant ñëpp bàyyi ma kenn jaajëf barki eh, eh, eh, sëñ Bamba moo bëreewul waxoo woon li caatu jam ñaañu la laa def li waa ji moo bëreewul barki sëñ Bamba moo bëreewul war ngaa niil ak li nga wax yëpp yow non niil bi si victoire la boo ko tamit barki sëñ Bamba da nga ni woon da nga koy jàpp mu jeex benn jooy noonu la def yow nga ñëw fii yéen ñaar kenn mënu fexe ba daan daa taxawul barki sëñ Bamba taxan ma daan ko ah day daw day ba nga mu mag bu jëm mu toll ni moom may daw maa ngi bëggee jam ñaa bu baax nag ñoo sonn si làmb maa ngi sant waa Jamiña bu baax sant gars yi bu baax. di sant Adama Mbaye bu baax jàpp na si combat yi. victoire bi wala xam may nag bari ci sëñ Bamba. Eh. maanaam waroon na gën a demee nii. mais xam nga ni xam nga na nga wala dolliwaat entraînement. gën a liggéey. xam nga na nga yokkaat physique. waaw par force. xam nga ne xale bu ndaw. ak xale bu ndaw ba léegi damay <laughs> mais maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey nan ngeen ñëwee. kontaante rek a bég. tuddee ma ko mais ñuñ ko tuddee ñe man maa si gën a ndaw xooluñu si man dara tuddee ma ka ne ma carrément tuddee ñu la ko pour dara mais dañ la koy tuddee pour rendre le hommage pour sa liggéey loolu moo tax ma kontaan. laay. mais jantal maaraa ngi nii de. maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. baam nga jàmm. maa ngi sant Serigne Sall yu baax. waaw yaa baax. tey moom tëngëj tëngëj laa ñëw tey. tey tëngëj nga ñëw. waaw mais tey ko indi. soq maa la doon soq Mbambilor. ok soq laa doon waaw. moom moom ba daan. bëri na ba daan waaw. waaw. mais temps yi temps yaa ngi def effet de. waaw mais suba la confirmation bi suba Caatu Jolof. waaw maa ngi ko ñaan yàlla suba yaa indi Caatu Jolof. incha allah rabbi na ma na ma gars yi xaar. waaw ma ñu ngi si àll. 2STV sa signal mi ngi ñëw wala. waaw mi ngi leer instant yi xam nga ne foo nekk signal bi mais maa ngi lay nuyu. bëggee di la ko am kontaan bu baax a di nuyu waa Tëngéej. di nuyu waa xam nga waa Jolof Kaolack xam nga di nuy waa Thiès di bëggee suma gaay yi écrit kaay baax suñu coach yi ñoom Ahmed di la bëggee di bëggee moom Malick Thiaw woon di la bëggee di bëggee waa 2STV yëpp. mais may wax rek sotteekul booy ñooy daw rek. ñan lañ lay wax. waaw ay booy booy booy yu ndaw yi lan may wax. bi ngay bàyyi. non non boo bi booy yi jël la. lii laay def samay loxo. man jàpp ah, naa <laughs> ne na mu a. mais yaa ngi jàpp sant mais tey laa la fekk. waaw instant yii mooy loolu suñu bés la dañoo war a taaral bis i instant yii gars yi dañoo war a ñëw fii ñuy bëri ñuy taaral bis parce que comme ñun dañuy dem di leen fekke ñoo ñëw fii nii bàyyi. parce que dañuy neexal làmb rek. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. foo ak reere rek. waaw ku daan sa morom bis ne mais foo ak rek. kontaan ci yow nañ honorable mais ci loolu. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. tey looy garaaw garaaw. a ah, nu ñuy def ñun dañoo garaaw nag wala boog. waaw mais naka mu nag. mais naka mu. nice. tey tey koo indi. tey ñun maa indi kii nu mu tuddati leer gi ak euh, Baye Modou Wuteng. Ah. waaw leer gi moom def na bagage. moo daan mais sama beneen boobu dañ ko daan. waaw mais maa ngi koy ñaanal yàlla bu amaatee combat yàlla na ko yàlla may ndam. defeti yam fi quoi. mais foo tollee ah ñu ngi fi comme si kii lañ jógee nu mu caatu mbomboy. di ñaan yàlla nag grand combat bi mooy euh, Alpha 2 daan Ndomar daana wala demee mais nag. mais keroog keroog la nga bëre dafa rëy. non noonu laa mel. nu ma def pulum dafa garaaw. dafa nu ma def taala gaynde dafa garaaw. nu ma def ay dix combats dix combats trois défaites. foo jëm. ah Gris 2 doomu dàngu dama si bëre. dama si bëre mais adversaire laa amagul ba léegi gars daw. koo bëgg Seck ndaanaan na ñëw ñu bëre. waxal sekk mi ngi nii. Seck ndaanaan ñëwal ñu bëre maa ngi yow làmb la xam ku ñu boole armée armée daf ma daan daan la kon nañ bëre mu neex. ah wala boog. wala boog loolu du làmb. eh. wéy tiijaan fay mbër waaw Bamba ziar naa la ana ziar bi xam ne ngeen wax ziar naa la te du ngeen joxe ziar bi ana loolu moom dëgg la moom ziar moom day ànd ak enveloppe quoi <laughs> mais ba am nga jàmm waaw sant nañ bu baax mais tey lu waral teewaay bi fii waaw suñu doom day di bëre rek leer gi te yàlla sutural na ko may ko ndam waaw ñuy ñaanal ñi des rek yàlla suñu borom sutural leen may na ndam euh, Ndoumar ñoom Papa Yada hmm. gars yi yëpp daal waa Tëngéej waaw mais temps yi laa gëj a gis. waaw temps yi moom gëj ngeen maa gis quoi mais instant yi moom pare naa quoi. fii nga mujj. waaw fii laa mujj non non arène nationale. laa mujj waaw mais adversaire yi nañ ñëw rek gars yi ñooy daw rek bamba. ñoom kan. 12 fii lañ ko wax mu ne sama mbokk la. kooku eh, bokk 12 ans ba néew. 12 ans bu piqué waaw. nee na ay mbokk lañ te bokkuñ dara daa daw rek. waaw ñoom saa bokkal nañ jël avance bi rek ñu bëre. saa bokkal barke yonent bi. mais saa bokkal diisu. non non ñooñu diisuñ ci man Bamba. Ah. barke yonent bi. ndax liggéey bee ko maye. waaw liggéey baa ko maye de. ak ñoom Boy Dakar. ñoom Kaaw Gourné. ñoom ah. Koña ñëpp nañ ñëw ñu bëre. barke alxuraan ñoom ñëpp samay adversaire la. waaw. kontaan ci Bamba da ñoo war a invité nag ñëw ba Ndamba. waaw ah, loolu yow na def naa ko. quel jour oui ma armée ngi nii armée ngi nii tapet la armée ngi nii tapet na suñu combat taxaw maa ak yow ku ragal du ko wax suñu combat na taxaw ma ak yow pare naa ba pare rek pare naa loo may indi lu sax lu bees ci waa sant bu wér a mais ba am nga jàmm. waaw sant nañ bu baax baax. ñu ngi leen bi nga bi nga bi nga jugee arène nationale déggaatuñu la. waaw booba léegi mooy loolu mais promoteurs ñooy wax bu baax. xam naa fii ak mardi am na lu rëy lu war a taxaw incha allah. looy wax ni lu ngand ah. surprise waaw. maa ngi dégg loolu incha allah. ci kaw nga tibbee wala wala ci. waaw ci kaw laa tibbee nag. ci kaw nga tibbee waaw bu taxawee rek di ngeen xam ni lam bu taxaw na incha allah. la may gëm-gëm boobu. Euh, parce ma xam ni fi ma nekk du sama place. waaw bu ñu ma joxee ci ponkal yi si kaw rek ma soog a warees li nekk sama sama talent. ñoom kan. ponkali rek. ay pakala bu mbuur Forza. waaw ponkali waaw. Eh, yemal bu maa ci loo boobu. Ah, te fi di nga dégg sama combat ponkali taxaw incha allah. Ah. waaw noonu la demee. mais kontaan nañ ci yow. ñoo gën a kontaan ñu ngi fii caatu jëm ñaaye bu baax. waaw waaw lamb yëpp ñoo ko ànd liggéey ko kontaan ak lépp. ñu ngi koy fii bu baax a baax di ko ñaanal bonne continuation incha allah. waaw ñu ngi bëgg si yéen bëgg nañ si yéen. wax ko xool non non dama gënoon mel na gars yi dañ ma jël te yàlla tax. xanaa gars yi moo tax keroog ñëwoo. dara jaay njool màgg xool gars yi ñooy tegg rek. ku ñëw baax na. koo soxla ku ñëw baax na. demoon ci gaal yi de. Ronaldinho daa demoon ci gaal yi mais mais géej neex na. barki Serigne Babacar Sy. waaw ah. bu déwénee su ma ko déggaatee damay dem. li ngay def waay. barki Seexul Ti barki Seexul Tijaan. non c'est non loolu. barki alxuraanu karim bekkee li may waat waat naa si dara yàlla mu fekk sama njëriñ. dinaa la booleek la booleeg Nastour. dinaa waxtaan ak Nastour voyage. moom dina la jox billet nga dem. dinaa waxtaan ak moom man bëgguma. non kon li nga nekkee yaa ko waaw xam nga la moo tax maa ko tey. dama am si làmb ñu bañ la du ma jox sama cër. nga la. bari na. kan lu ma ah, man mën naa bëri comme mën naa bëri combat deux semaines. waaw ah. waaw. mais dégg naa ne ko Amadia da nga kooku tapet la. tapet bu mbag la Aliou Seye. Seydou lay wax Seydou tapet la ah, Seydou Junior kooku ñemewu ma. Seydou sama doomu ndey la moo wax sama. non Seydi Dior maa ko man man ku ko man ah. barke alxuraan Alioune Dior maa ko man non ragalu ko day jël avance bi non man dinaa ko ah. di nga woo yàlla xam ne du ko jël da ngay jël mais dama la la ma du ko jël ah. maa ko doole maa ko gën a doon xale maa ko dàq bëri maa gën a fere. léegi waxal sénégalais ni leen jëlatoo gaal gi parce que boo waxee ne ñoo xam ne dañuy yaakaar ni baax te gaal gi baax. incha allah ci kattanu yàlla bu neexee yàlla suñ borom su ma bëreewul bu déwénee damay dem. Eh, mais mën na ngay tiire wu de dama laaj dama laaj adversaire am léegi mu ni ma su ma ko jàppee mu jeex ma ne ko looy wax nii mu ni ma dama ko confirmer su ma ko jàppee mu jeex dégg nga loolu. Bamba siyaar naa la. mais maa ngi delloo la waay bilaay walaay fii sama toolu maam la bilaay walaay du am. dara sa toolu maam fii. te ngeen lañ dëkk wax naa la ay lébu lañ piir lébu si ndey lébu si baay. Eh. fii kenn du fi ñëw di yóbbu dara. kon fii mus du fi ñu naanee ñeex. xalaatu ko sax. xalaatu ko. mais ba gars yi jàpp nañ ci keroog yaa ngi doon woo yaa ngi doon woo gars yi. waaw waaw waaw ñëw nañ. non ñu ñëw sax taxul ñu ne ñëw nañ quoi parce que tey boo xoolee Tëngéej Tëngéej ñaata autorite moo fi ne xam nga tey boo xoolee benn autorité moo ma jàppale muy Adama Adama ki tuddee sama drapeau Adama gi Adama moo si jàpp daal. barke Allah. mais danañ yoolee gars yi pour euh, euh, nu mu tuddati sax politiciens yi dañoo bëgg lu yomb ku leen jàppalewul da ngeen koy wàccee. lu wér gañ ah. amul ay yaade ku ngeen ku leen jàppalewul wàccee leen ko. ah parce que ñu soxlawee ñun dañuy topp seen ginnaaw. du taw ba pare ñu amee lu ñu bëgg kenn du ñu jàppale. waaw ah dañu jàppale waaw ah dañu rek. bu ñu jàppale moom mais saa neen da lay defaral de. barke El Hadj Fallou mënu ko. bilaay walaay fi sama toolu maam la. mais ñeme gi nga ko ñeme nii lan la. fii ñoo ko moom ñoo bay. Eh. bilaay walaay. mais luñ mën a xaar ci kanam. ci kanam ay minutes rek ma rek la gan gi. gars yi final buy xeex. maa ko daa xeex. buy nee bëre. mu bëreel ko lu neex. rendez <laughs> action rek. <laughs> Papa Yade face à Koy Sili ko eh, eh eh attention jëli na ko attention Madou ko daan Papa Yade numéro 2 Koy Sili dem nañ ci suuf eh, ñu ngi bëre ñu yee eh, Papa Yade daan ko Papa Yade daan ko Papa Yade numéro 2 daan ko daan ko. nga jàmm. sant bu baax a baax. jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke. jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke. Serigne Mbacke jërëjëf. xam nga sama mbokk taalibe nga moo jël dara boo tuddee ba léegi yëg nga waaw santaat bu baax. ci li nga xam ne waa Rio Events la ndax su fekkee Rio Events dañoo jël drapeau tuddee ko risque nawetaan 100 pour cent fair play kon ñu ngi oo waa yëpp ci fair play ñu ngi oo waa Tëngéej ci sport li ci gën a yéeme mooy ay jigéen ñoo ko organisé kon jigéen ñoo ñu waroon jël seen xaalis dem Dubaay wala dem feneen wala di diwu def comme seen morom mais ñu jël seen xaalis ngir dimbali ko seen i jeune frère yu dëkk ci biir Tëngéej loolu amuñu seen fay di wane ne Tëngéej yëpp ñu ngi seen ginnaaw te Tëngéej dinañ leen gën a jàppale dina taxaw seen ginnaaw te dina leen jàppale wax dëgg yàlla kontaan nañu ci yow ñun ñoo gën a bég wax dëgg yàlla te it nañ leen bàyyi xel te wane ni bii mooy première édition mu feesee nii mel nii kon nañu leer ni tànk kanam lay am waaw ay dañu koy ñaanal Euh, Nambour ñu ngi koy ñaanal moom waaw moom jëkkëram daanaka mooy président mooy entraîneur u Azal kon moom ci sport rek lay dund sport la xam ñu ngi béggee waa Tëngéej yëpp wax dëgg yàlla di wane ni seen teewaay bi ñu fi teew waa Tëngéej ah. waa Tëngéej daal sagal nañ soxna yi macha allah ñu jël bis bi tuddee la ko tey ba léegi yëg nga am. waaw waaw kontaan nañu kontaan bu baax.

doon marraine di Ndeye Yacine Ndeye mu asu ak maal si di doom bu baax doom ju bëgg ndayam doom ju yërëm ndayam dama ko ne léegi di nga am ay drapeau yu drapeau ndax nag yaa bëgg sa dëkk yaa bëgg sa quartier yaa bëgg say bopp te Ndeye Yacine bi gisagul dara ndax doo fu ñu dem maa ngi lay nuyu ay drapeau bi nga tuddee tey ba léegi yëg nga ci am waaw drapeau bi dama ci am contentement bu wér ndax ñu dëgg seen bopp am sama yaay am sama xarit moom mi nga xamante ne moom dugal ci politique tey jii mu nekk alliance bu laaree la di si nuyu nombre di nuyu ay dendooy mi ñu àndal ak seen góor bi tamit si ñoom ñëpp di leen wax ne kontaan naa ci liggéey bi tuddee làmb ji amul seen fay. mais tey bi nga dugg see gis làmb tey noo gisee làmb. waaw ah, kontaan kontaan si liñ ko defee suñu dëkk bii di Tëngéej kontaan si. initiative bi ndax day dundalaat lamb Ndakaaru day dundalaat culture Ndakaaru ndax ñu amul lu dul Ndakaaru lépp lu koy développé rek dañ ciy ànd lu ñu am dañ ko ciy def lu ñu amul dañ ko ciy def kontaan ci bis bi taxawaay bi ak ni ñu ñu organisé bis bi ak combat bi fair play ñu àndal suñu supporters yi yaa ngi gaay rek waaw yaa ngi gaay ko Thank you. baam nga jàpp. waaw maa ngi sant yàlla baax na. tey lu waral teewaay bi. ah sama jigéen Ana Diagne mu dëgg lam am ba ñëw si dëgg yàlla sama jigéen bu baax la mu dugalee ma dugg ci wala ma leen doy sama teewaay bi dëgg yàlla waaw mais bi nga ñëwee noo gisee lam ah gën naa lam trop waaye daa xam lam neex na trop waaw gis naa fi loolu loolu loolu sax ci combat taal ba Cheikh Talla Mbeer laa mujjee ñëw fi fi ñëwaat tey waaw dëgg yàlla dëgg yàlla. mais lay wax ci réew mi temps yii réew mi doy na waar. waaw réew mi nag ñaan yàlla jàmm rek dal nekk xam li nga bëgg mais dañu doon jàmm rek ku ci woo bee ñaaru ñàkk. waaw dana def ñàkk dal ku war a jël jël ku war a génn génn ci mais xool nga réew mi wala xoolal waaw réew mi noo ko bàyyi gars yi rek maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay bu baax. tey lu waral teewaay bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi nuyu ku teew. ñu nuyu Tëngéej yëpp. ñu nuyu Dakar yëpp ñu nuyu Sénégal yëpp. li waral teewaay bi. yàlla dafa dogal li ngi xew. li ngi yokkute si Tëngéej. sunu réew sunu jigéen yu baax présidente bi jiite jigéen ñëpp jàpp-jàpp bu rafet taxaw taxaw bu rafet kon day jaadu bu gëstoo gis sa tàmbali ba bu gëstoo gis sa sa sa sa tëtëma mu sant ku teew nag gis nga alaada mën a lool te am nañ si contentement parce que une première bu mel nii dal na xel une première bu dal nii dal na sant yàlla adduna nag jigéen baax na góor baax na comme jigéen baax na góor baax na nag jigéen ñi takkoo taxaw ba doon promotrice bokk si nun ñuy lépp lu ñu def rek lu dul jàppale leen amoo seen wet moo fi waral teewaay bi ñu fi teew tey te teewaay bi ñu fi teew tey toogee nañu fi toogaay yi Alaaji Sallou Dione grand lama de cover moo xamante ne président d'honneur du conseil de l'État bu lépp su si mën a jàpp gërëm nañ la sant nañ la jërë ngeen jëf. jërëjëf kontaan nañu. yaa ngi ca. Youssou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay Bamba. mbaa nga jàmm. maa ngi kontaan baax. mais tey lu waral teewaay bi. ah waa Rio Events ñoo ko waral. waaw. moo waral teewaay tey Nassour Voyage. mais mais da ngaa bokk ñi nga xamante ni ñoom ñoo sponsorisé bis bi. lu waral loolu. Ah, seen bébét la parce que dañu defoon benn casting bu am solo dugaloon ci lutte. di lutter contre euh, voyage clandestin bi moo waral teewaay Nastur voyage parce que ñoom ñoo bëgg a légaliser lépp lépp luy combat wala luy voyage daal lu illégal. tey bi nga ñëwee loo yëg. contentement. vraiment accueil bi neex na trop kontaan naa ci de. vraiment kontaan naa ci trop. kontaan nañ ci yow la nga wàcc kon après. ñoo leen gën a kontaan. et eh, Bamba kontaan naa merci beaucoup. ndeysaan mbokk yi combat spécial baa ngi noonu ajaratu Fatma Dia nga xamante ni tey maa ngi lay delloo siyaar Fatma Dia alaaji kay borom géej waaye maa ngi lay siyaar ndeysaan ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngi jàkkaaroog sa morom seen Ndumaar waaw Ndumaar la. ak Ngari Ngari. waaw. dafa Ngari Maari. Ngari Maayo. Ngari Maayo. problème la am tey. mbokk yi tuuti Ngari Maayo. ndeysaan combat spécial baa ngi noonu. Ngari Maayo. Ngari Maayo moom moo nekkee à gauche. Ndumaar moom moo nekkee à droite ñoom ñaar ñu ngi leewaatu. kii jiital gauche kii jiital droite. Ndumaar ak Ngari Maayo ñoom ñaar. Ngari Maayo moom moo jiital tànku càmmeñ moom moo nekkee nii waaye Ndumar moom moo nekkee à droite ñoom ñaar ñu ngi leewaatu ñoom ñaar ñu ngi leewaatu Ndumar moom moo jiital tànku ndejoor Ngari Maayo moom moo jiital tànku càmmeñ ñoom ñaar ñu ngi leewaatu kenn ku ci nekk da taxaw jàkkaarloog sa morom di xool ndeysaan Ngaayo Maayo déplacé na wu na daal di taxawaat. ngaari maayo loolu xanaa ay tukulóor la. sama mbokk tukulóor la say la ñu. waaye ñoom ñaar ay poids lourd la ñu. waaw moo tax mu nekk combat spécial. tey Rio Events moom moo ni foo ajaratu Fatma Dia. bi dem màkk nag Fatma bi mi yaay bay bal la. maa ngi lay nuyu. at bi ba àtte na bi. atte na ko mu ngi wax ak ñoom nee na su ma ñëwaatee yat bi day dal kon bëre leen gis nga yéen la ñëpp di seetaan dégg nga ko dañ leen a jox avance. gis nga arbitre bi sifle waat na ko bi wax na ak ñoom ful la wax ak fayda nee na ko su ma ñëwaatee yat bi day dal moo tax kenn ku ci nekk yaa ngi taxaw jàkkaarloog sa morom Fatma Dia ah Numar moom moo nekkee à droite Ngari Mayo moom moo nekkee à gauche Ngari Mayo mu nekkee à gauche mu jiital gauche. Ndungaar. Ndungaar mi nekkee à droite moo jiital droite. ndeysaan ñoom ñaar. xale yëpp ñuy defar na benn. ñoom ñaar sànni na benn. taj ba commencé na na benn. waaye mën naa moom it daal di fayu. combat spécial bu am solo Fatma Dia. ah. Matar ak Matar waaw. moo yor Poutine. ah. moo yor Poutine. Noumar Noumar moom mooy borom Tëngéej ndeysaan nga xamante ni xoolal xale yi ci kaw ñu ci bari moom moo leen indi tey ni mu def stade bi am na solo bëgg na ko plaqué mais day yomb bëgg na ko cabaxal wala day yomb ba léegi. Noumar mi ngi ah. moom mi ngi bëree. Noumar ak Ngari mu ngi koy déglu da koo bëgg a génnee da koo waaw loolu jeexalul combat bi loolu jeexalu ko loolu lañ naan lu ko tëgg tas ko maa la wax lii ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lu kum daje kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp sa morom taxaw waaye ba dara mën taxaw ndax ni ñu taxawee la bëgg na ko plaqué plaqué boobu boo àndoon ak cabaxal ah loolu leneen la waaw bëre ñaari tànk Balla Gaye 2 Ngomar ak ma ak Ngari Mayo Ngari Mayo moom moo nengo moo ngem moo ngem bu ñuul nee na ma kéwal laay seetaan te waay mën nga ni ma di seetaan kéwal kenn mënu ci dara ko koy moo yor Poutine maa la wax ah, ah. mooy suñu mooy suñu mooy suñu télé waaw waaw Poutine ndaanaan la mi ngi yoof mi waaj mi waaj ak caatu yaraax caatu yaraax lañu war a dajal incha allah waaw mardi le face à face bi incha allah rabbi ndeysaan ko koy Matar Ndiaye le grand manager ndeysaan ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppoo Fatma Dia lu nar a bëgg na ko kal bëgg na leen ah déedéet nag arbitre arbitre ah, mais bu mais bu ko jox keebe bu ko jox numaar leen numaar mi ngi bëre ah numaar mi ngi bëre ma ne bu nga waaw waaw du ko moo tax amut jàmm ne ndeysaan ak Ndoumbar. ndeysaan ay trois mille la ñu mbokk yi. na bu Tëngéej. ba pare combat bi daa mënul yomb nag. waaw combat bi mujjul waaw te lamb ji daa am lu mu baaxoo. daan dem daanu xaar. ah eh, dañuy xeex dañuy xeex dañuy xeex mu ngay dóor Ndoumbar da ngay dóor oh. mais mais ma la waaw waaw. non waaw waaw bi ci kanam la. ci kanam lay la xëy la laa. Ah. ndeysaan ñoom ñaar ba léegi xeex nañu taxawaat waa nag bala bala ngaa yeb bala nga yeb sa morom faaw ngeen ñamante bala ngaa xam sa morom lu muy saf. faaw nga xam waa bi mooy combat spécial bi. ñàkk leen xam warul bu lamb ji sàggee mbar ma waaf ca geew ba waali njuufe lambi yaay borom jomba ñaaw ah. jomb ji doo rafet na ru baayam jeex waaye bamba jomba ñaaw ah. yàqu leen lamb ji benn yoon faa jomba ñaaw jom day daraja baay ah. ci ko kuleer ci bokk dégg lee day gileem mbaay gileem bu doon màggee saf lay baaxoo la ma ji sa jeema way ah. gewel diin sa ndaar dama wax ni yéen da ngeen nekk ci làmb dama wax ni yéen da ngeen yóbbu làmb ci kanam mooy que ne jeunesse bi wane seen bopp si tëngee def nañ ko tey mais seen première édition tey ngeen def ni stade bi tamit waaw lan mooy secret bi waaw li may woyee kontaan ci yow. merci beaucoup Baba. ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo. Mate ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo ba léegi. jàppante waaw mënut a ñàkk Wario Evans. Wario Evans. ñoom ñaar jàppante kon ñoom ñaar bëre nañu ba mi-temps. bëre ba mi-temps ñu ngi ci deuxième mi-temps bëgg na waaw ñaari maayo loolu ak numaar. ak numaar waaw. mais caxabal boobu. loolu jeexalul combat. loolu dafa sori sax. daa sori. ndax caxabal <laughs> ñoom ñaar jàppante ñun xamoon nañu combat bi mënut a yomb. waaw ay poids lourd. ak ñoom ñaar li ñu waxante lépp. waaye tàcc tàcc dégguma ko. mbàcc mbàcc. tàcc tàcc. yaa ngi koy dégg. non dégguma ko tàcc tàcc. daf may neex. bëgg xew. lan mooy bëgg xew. ñoom ñaar lan mooy bëgg a xew. en tout cas seen pieds jege. mais Zarko Ada Fass nii la demee woon. waaw waaw moom laa bëggoon wax jën kay rek. ak jën kay rek. waaw nii woon. ñaar yooyu yëpp nii la woon. ñu xool ba xam. Zarko moo nekkoon ne. waaw moo nekkoon ne. ñaari <laughs> nekk nii. ñu xool ndeysaan. waaye waa Lour ak waa ah taxawal ba kii moom day yóotu rek. moom day yóotu. Mbari Diop Fall bi day yóotu rek. ndeysaan kut si ci boppam ñu ngi naan battu ko. jamono nee na day jël soxna suba. suba la la 18. kan la dëggal na ko képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel lamb Cheikh Super jamono sama doom ji mooy jël soxna suba la. nit ku baax la nit ku baax. nit ku baax mu nga fële sa Maroc. ndeysaan waaye naaru maayo. ndeysaan nga ni maayo bëgg na ko fàq. bëgg na ko fàq. da koo bëgg a génne. da koo bëgg a génne waaye. du maar du maar dafa bañ. du maar ci boppam dafa bañ ndax bëggul tolloog moom avertissement mu ne combat bi man damay ragal mu jeexee décision arbitre. am na ku ne ma combat bi ah, mais mais combat dafa diis ñoom ñaar. ay poids lourd waaw bom boo nekkul poids boo xamante ni da ngaa mobile boo méttul ah, say action day yéex te ki ngay bëreel day jàkkaarloog yow di la xool. waaw ak nu waaw. mais lamb ci na sor waa teewaayu Nastor voyage Nastor voyage tey moom moo sponsorisé li nga xamante ni moom mooy journée bi ah ñoom ñaar seen combat métti na. ñoom ñaar sen komba seen combat métti na. ndeysaan ñoom ñaar ba léegi ñu ngi jàppante Ngane Mayo nu maar nu maar loolu ngay def ndax wóor na ñoom ñaar ba léegi nu maar ak ngaari maayo kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp kenn ku ci nekk yaa ngi jàpp at bi baa ngi wax ak ñoom nu maar ak ngaari maayo nu maar am na nu maar bëgg na ko cabaxal ngaari maayo ak numaar ngaari ba léegi ah, arbitre bi àtte na leen dañuy mitan waaw dañuy niil dañuy niil dañuy niil dañuy niil da lay nuyu maa ngi lay fay tey yéen a woote bis bi waa Royo Events tey Royo moo woote di ñu ñetti jigéenu yi ki nekk ni di sama rak ay da ni ndooy day xale yu baax xale yu am yar am teggin xam nga xale bu yoroo di joxe cër mag da koy gunge sama rakk yii di samay doom xale yi moom yaa ayta sax lañ may wax kon am nañu yar am nañu teggin bu ñu meloon ne ne du leen nangoo boot te kon du ma nangu tamit ñuy jiitu ma di si topp wala ma jiitu ñu topp si kon ñoom dama leen di ñaanal yàlla di wax ne nag tey bés dañ ci kontaan ndax tey dañu ubbi rek doon ñëw rek xool waaye tey tëngeej ñëw na tëngeej uy seeni boo xoolee tribune officielle bi doomi tëngeej ji ñëw nañu maama autorité yi ñëw nañu waaye autorité cosaan yi tamit ñëw nañu conseil notable Lebu Grand Cap ñëw nañu ñëw na jàppale sa seen i jigéen moo war li may wax rek mooy na mbër yi gën a góorgóorlu te xam ne Rio Events yi ñëw nañu te nag dañuy ñëw riposter nu résister pour jàppale ñoo opté ne dañuy gunge mbër yi te duñ ci dellu gannaaw bu soobee yàlla. mais tey gis nañ leen tamit nga sargal ay mbëru Tëngéej. waaw dafa leen ay attestation. waa li tax mooy dañu jox. sunu mbëri tëngee ji xam ne li ñu jog di ko wax pour ñoom la ñoom ñëpp na jog jàpp si mbër moo fi gis tey def na vidéo ko uti na ay nitam jàppale nu ci billet yi moo war a tey ñoom ñu defalee ay ay attestation wan na leen tamit yëg nañ ñun taxawee suñu ginnaaw. luñ mën a xaaraat ah, ci Rio donte am na ay soxna yi ci nekkoon ku ci mel ne suñu maman Ndeye Ndiaye ak ñeneen ñoo xamante ne ñi ngi woon ci làmb ñu gis tey yéen ngeen am fit te làmb dafa am fu muy baaxoo ngeen ñëw wane seen bopp jël Rio Events yéen femme brave yi ngeen bëgg pour bu nga xale yi lan mooy bit bi but bi damay sargal tamit sunu mag jooju Ndeye Ndiaye Tyson di wax na tey moo ubbi bunta bi ba tax nu ñeme kon moom ñoo koy sargal but bi nag paasewul que ne dañu am ay mbër département de Rufisque rawatina nag sunu ville de bii am juróom-benn écurie yoo xam ne ne mbër yi du ñu bëri nee naa écurie bu am 30 mbër boo xoolee ñettaa siy bëre wala ñeent ñu dem ba xam ne ñun ay famille làmbaloog lañu moo loo war a ñu simmeeku dugg ci làmba ji ñi amul lu ñu bëree ñee nga sa cag-cag ya donte baax bu donte baax na ñee ngi dugg ci géej gi ñii dem ñii di teer ñii dem di dellusee loolu nag daanu nag daju suuf neewuñu man kat mën nañ ko fay jële mais ñu si siy xeex mën na am bu yàggee dina wàññeeku loolu daal moo tax ñu sumee ko dugg ci làmb ji. waaw mais yéen ñëpp ci ngeen seen teg bët. waaw arrivé deuxième avertissement bi du yoon. ñu ngi bëre ñu ngi bëre moom moom bu may avertir moom mu ngi koy wax naan kan yow bëreel am nga ñaar ki am na benn bëreel bu instant maa ngi bëre mu arrêté làmb jox ma avertissement bàyyi ko si biir. da ngaa jàpp ni arbitre bi moom moo yàq. sa non moo yàq sama lamb. billaahi mais damay sant yàlla bu baax. mais xam nga li la yoon may suba defarwaat. waaw xam nga li la yoon loolu yëpp garaawul. bu ah. may xëyaa suba takkaat kese rek incha allah nekkaas. xam ne xale nga. di jégalu ñëpp jégalu waat ñëpp. gis nga li ngeen di tey ci stade bi. billaahi di leen jégalu baax baax baax. ana mafia bi ana mafia bi. mafia bi wax nii dinaa la ko am. barke sëñ Tuubaa day daw rek amul arrêt. tëggal nañ tëgg rek mais sànq sànq waxoon nga ko. parce que Serigne Touba. dama leen bëgg xamal ne làmb yi man dama si yeewu. kuy xeexam man di nga gis lu toog. mais xoolal te Adama Dieng Adama Dieng. maa ngi koy sant di ko gërëm nga sant ñëwal ci bi yéen ñaan da ngeen a lay waatoo mais Bamba Adama Dieng dama jàppale xoolal bañ ne su wala sama combat la ma may xaalis bu bëri barki Alaaji Fallu benn autorité te jàppale wu walaay Bamba mais yéen ñaan da ngeen a lay waatoo waaye dañoo xam nga gars yi ma jox ko ci koy bandi xam nga jokkaas ka arrière tuuti bàyyi mu ñëw bamba mu dugal cabaxal bamba xoolal mu ëlbati nanga ne ko xoolal xale fii lañ koy teg waaw man laa mais bi ah? mooy sa ñaata combat ah benn bi dowaat benn bi décision arbitre la. beneen bi dañoo ne daan na ak daanu la mais garaawul taalibe moo ma daan mais bàyyi faa mais kon gars yi am nañ problème. gars yi am nañ problème. baax. pare ngeen pare nañ bu yàgg. waaw ah. ndam rek. ah ndam rek. Mbaye Sadio nee tey du la may dara. ah yàlla sutura ànd ak ñun. Ah. mais nee tey da lay dóor ba ngay bëgg a dee. yàlla yàlla sutura rek. mais luñ mën a xaar ci kanam. ah dina leer léegi incha allah. ah. barke yàlla abay ñu dem abay ñu dem Aïcha parce que lii dafa nekk lu Tëngéej soxla woon na lii Tëngéej bëggoon na dund événement yu mel nii lamb dafa xawoon dellu ginnaaw fii ci Tëngéej waaye tey réew events dellu si nañ làmb moo ciy remercier ayta ak ñi nga xam ni ñoom la ko àndal ñoom nombre ak ñoom ñëpp di leen wax ni ça c'est une très te buñ jëlee la la la commune de Rufisque ni moom mooy parrain bi à travers son ñoom dañoo delloo buum ca mbooy mboy ka parce que xam nañ ni Rio Events dangu lañ bokk dangu comme du Roussou Nord la bokk tey bu ñu sargalee seen maire seen bopp lañ sargal di remercier Aïta bu baax a baax di ko encourager encore une fois parce que lii dafa rëy nee naa ko nag tout début est difficile mais incha allahu rabi di ngeen mu dem bay tëgg ay grand combat bu soobee yàlla loolu dama leen koy ñaanal parce que ay jigéen ñu brave lañ jàmbaar lañ te defuñu dara lu nekk di liggéey pour jël yóbbu seen ay dëkk di dimbali seen ay frères en tout cas ñu ngi leen encouragé bu baax a baax a baax on est vraiment fier et content ci ñoom Aïta ak ñoom Ndombour ñoom ñëpp vraiment on est vraiment fier de Rio Events non day day on va continuer à les accompagner incha allahu rabbi incha allahu rabbi lii début rek mais incha allah fi ñu jëm moom fu sori la bu soobee yàlla incha allah. ñaan mooy président Adama Diène muy directeur finance bu nan lañ changé léegi tur bi soo tur bi léegi ñoom ñii avenir u Tëngéej lañu moo tax gis li ñu fi dajal tey si ay jeunes moo tax ñii dama bëgg na leen Tëngéej jëpp tëye bu leen Tëngéej tëyee teg leen loxo li ni ut dañ koy am monsieur le maire li nga waxoon def nga ko yàlla na yàlla fay la tey gis nañ di nga ñëwee monsieur Adama Diène gis nañ ni nga ñëwee xam ngeen ne yéen Tëngéej moo leen ñor xam ngeen ne jeunesse Tëngéej moo leen ñor xam ngeen ne jigéenu Tëngéej moo leen ñor moo tax ngeen ñëw defee ne ni ngeen defee ak seen doom jee sa ginnaaw di Ndeye Yacine Niang ma di ko gërëm di gërëm tamit Zeynabou Croix Rouge maa ngi gërëm tamit ana libaas ñoom ñëpp ñoo ngi leen di gërëm. ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay fay bu baax alhamdulilah. Ah, tey ban yëg-yëg nga am ñu gis ni lamb facteur de développement la. te ñu gis ñii ay soxna lañ tey ñu ñëw def la tout pour tey def li nga xamante ni moom mooy euh, stade Tëngéej par rapport te ndax ñu xool lu bari ci góor mais tey ñoom ñu takku pour mën a sensibiliser jeunesse bi loolu nag. Euh, d'accord soxna si euh, nga may ma ma sant d'abord sant yàlla bu baax a baax di sant Aïta di sant monsieur le maire aussi de la commune mooy kilifa gi du ko sama xarit la bu baax la ñu ngi koy sant bu baax taxawaayam day am day jëmmal bés bi moom bu ñëwee rek jeex na. ñun dañoo ñëw rek pour jàppale suñu jigéen wax dëgg yàlla ndax maag moom ba ñuy xamante yàgg na donc bu ñu ñëwee nekk Rufisque Nord aussi Rufisque Nord xewle dëkk ci dëkk bi day ñëw jàpp si rek day ñëw dooleel mu le maire loolu moo tax ñëw kontaan nañ tamit ci bis bi parce que Tëngéej lii la soxla jàmm moo gën lépp lii bu jàmm amul duñ ko mën donc lii dafa jëmmalaat Tëngéej nit ñi nga xam ne lii nga xam ne kon Tëngéej bëgg nañ làmb te làmb dafa nekk benn facteur de développement jeunesse yi ñi ngi entraîné lu ma wax sànq rek ay na jërëm xale yi nañ leen jàppale ñun pare na nag ku jàppale xale yi ci dara nag te yàlla tax voilà. soxna si mag ngi lay ziar yow tey yow yaa sponsorisé li nga xamante ne moom mooy journée bi. salaamaaleykum soxna si maa ngi leen di remercier di remercier aussi euh, Wario Events biñ ma choisir ma nekk seen sponsor leader di Nastour Voyage. ba pare dafa nekk loo xamante ne lu am importance la parce que ñoom dañu dugal benn def benn casting ci lut contre euh, voyage clandestin looloo waral taxawaay Nassour voyage tey ci kii bi di gërëm tamit euh, monsieur le maire di gërëm tamit aadama aadama seen léegi borom UCG maa ngi koy gërëm di euh, di gërëm Ndayaasin di gërëm sama naataango yi nekk fii yëpp vraiment kontaan nañ torop ci taxawaay bi gis nañ aussi accueil bi di ñaan yàlla nag Euh, lii nekk dem ba nekk ay émission émission Nassour voyage vraiment kontaan na ci taxawaay bi. les femmes ba tey d'accord nañ. alhamdulilah maa leen di nuyu euh, di remercier waa Rio Events si initiative bi ñu am dundalaat culture surtout ci Tëngéej gi ñu dëkk Tëngéej doon ville culture Tëngéej doon ville boo xamante bu ñu gisee jigéen ñu mel nii dëgg lii. fierté lay doon en ñu jël ko marane ko encore une fois man mi nga xamante jigéen laa muy doog a door ci làmb politique di ko di leen remercier bu baax a baax di remercier mbër aussi fair play la ñu àndal tey ci làmb ji gis nañ fi amu benn xeex amu benn xuloo macha allah ñu ngi remercier ñëpp. ñu ngi sant bu baax euh, di kontaan ci li nga xam ni moom la ñoom xeeta def di kontaanaat ci monsieur le maire di ko nuyu bu baax Assane Kassé muy ku baax koo xam ne lu tëngeej xewle mu ngi ci ñii nag nekk nañ ñoo xam ne tëngeej war nañ leen a xool te gestu leen te jàppale leen ndax lii ñuy def mënoon nañ jël seen xaalis dugal ko feneen mais jël nañ seen xaalis aux jeunes yi tëngeej tëggal leen ay combat présider ko waa tëngeej boo xoolee ku mel ni maire Assane kase Tëngéej lu ñu xewle c'est rare wala boog maa ngi gis lépp lu nit xewle di nga koy gis Assane Kassé te ñun loolu lañ soxla si plan yëpp ba tax na ñu ngi ñu ngi ñaanal ñii lii ñu def muy première édition mu feesee nii Tëngéej yëpp a seen ginnaaw te Tëngéej yëpp dinañ booloo àndandoo ak ñoom ñun Tëngéej ñu gën a doon benn Tëngéej am benn doole. ndeysaan munul ñàkk ay lébu la lébu dañoo ñoom ñëpp la ñuy jox. grand combat Alpha 2 ak ki nga xamante ni mbokk yi moom mooy Tubeless mu nekk drapeau Assane Kassé monsieur le maire de Pikine Nord ndeysaan mbokk yi ñu noonu. ndeysaan drapeau bi ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan drapeau monsieur le maire muy Tipless Tipless ak Alpha 2 sant baax ndeysaan

jàppale sunu tëngéej xale yu góor yi léegi kenn toogatul du nokk jigéen ñëpp a ngi xëy góor ñaa ngi jënd ceeb di jënd dool di yóbbul seen yaay grâce à Adama Diène Adama tëngéej jëppal a gërëm tëngéej jëppal a sant yàlla yàlla fal la cat ki yàlla ko yàlla fal cat dama koy gàtta na li may wax si moom du jeex waaye léegi kenn taxawaalootul ñëpp du ko ne la UCG ñuy liggéey ko yàlla fay attestation de reconnaissance décernée Adama Diène ndeysaan mu nekk loo xam ne soxna si ñu ngi sant bu baax a baax sant yàlla di leen gërëm ñoom jigéen ñi nga xam ne mooy Rio Events lépp ñoom la rek parce que nit lu ma am ci lu baax moo ko liggéeyal boppam donc man def ma dara ñoom ñoo ko liggéey li ñu am rek tey jii ci bis bi nu mu toll ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp parce que am nu mu doon demee tey jii nii di nii baax moo tax ñu am donc ñu ngi sant bu baax a baax di sant ñëpp incha allah rabbi kontaan nañ jërëjëf. Ah, dañoo kontaan tey ci bis bi di si remercier Rio Events avec à sa tête Aïta Diagne nombre ak ay dëndoo yi mënuma terminer te remercier wu ma madame la ministre Thérèse Faye Diouf ndax moo ma jàppale ci bis bi di remercier sama frère Ansou Sané moom tamit maa ngi koy remercier di remercier tous les responsables Benno Bokk Yaakaar de Rufisque Nord di remercier délégation bi ma àndal yëpp ci diggante Alpha ak Nokia Alpha ak Tibles ñoom ñaar seen combat metti na dañuy xeex ñoom ñaar dañuy xeex ba dóor mu daanu doom laa ilaaha illallah ak Tibles Alpha 2 ngi dox di xeex Alpha 2 ak Tibles xeex ndeysaan dañuy xeex dañuy Alpha 2 ak Tibles ñoom ñaar seen combat metti na luy xew laa ilaaha illallaah eh, eh. Alpha 2 ak Tibles ñoom ñaar seen combat mayentuwulu dara ñoom ñaar seen combat dañoo ñëw rek tàmbalee xeex ñu ngay xeex ba léegi Alpha 2 ak Tibles Tibles yaa ngi jël ay coups Tibles ak Alpha 2 së tët tët tët combat boo xamante ni kenn mayentewul sa morom dara combat boo xamante ni ñoom ñaar dañoo ñëw rek tàmbalee xeex ñu ngi xeex ba léegi léegi Alpha 2 dox ci kawam Tibles moom moo arrière Alpha numéro 2 moom moo nekkee à droite waaye Tibles moom moo nekkee à gauche ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar dañoo xeex xeex bu métti ba àndoo am ñoom ñaar ñëwaat nañu dañuy waajalaat xeex. dañuy waajalaal xeex Fatma Dia mës na mës ngaa xeex mësoo noonu la jigéen day ragal jigéen day ragal jigéen du am fit dañuy xeexaat dañuy xeexaat at bi yow ñii daje nañu nga naan daje leen ñoom ñaar alpha numéro 2 ak Tiblesse ñoom ñaar seen combat metti na waaye Tiblesse bëre bu eh! ay waa hyperkill ñoom ñaar ñu ngay xeex ba léegi te dañuy xeex léegi waaye combat ba métti na ñoom ñaar ba léegi jàppante nañu mitan ah mitan wala ardo ardo ba léegi laa ilaha illallah laa ilaha illallah tay nga ne ne arbitre bi sifflé waat na combat bi ci diggante Alpha 2 ak Tiblesse na nañu suuf ñoom ñaar kenn ku ci nekk da ngaa tibb suuf ñoom ñaar loolu ñoom ñaar ñoo ko déggoo tey Rio Events woo fii ci Tëngéej tey ñaar. ah ñoom ñaar kenn ku ci nekk da ngaa tibb suuf. ñoom ñaar lu nkum dajawaat. Nastour voyage sama xel dem ci moom tey moom moo sponsorisé nag bis bi. jàmbaare ah. waaw mais temps yi jigéen ñi ay jàmbaar la. non est euh, non kenn ñoom. ñoom benn problème lañ lañ am muy wor jigéen moom. ah waaw mais temps yi jigéen ñi ay jàmbaar la. non est euh, non kenn ñoom. ñoom benn problème lañ lañ am muy wor jigéen moom. ETDR waaw waaw Touba waaw waaw kañ waaw kooku jàmbaar la ETDR waaw les photographes ndeysaan waaw ah, kooku jàmbaar la production boobu l'infatigable ndeysaan ah, dama souhaité laa xëy na waaye ni lan la waaye Fatma Dia lii lan da koo kal woon da koo kal na loxo ba yëkkati loxo ba waaye Alpha waay Alpha sama xel na ci Alpha Sarr borom la neuf la neuf day takk laa xëy la

Tëngéej dafa bëgg ku téye doom Tëngéej ay champion la ñu am xale yi xam nga lan moo leen téye ñàkk ku leen jëndal xam nga lan moo leen téye ñàkk ku leen may ay kaar ñàkk ku leen jàppale ñàkk ku leen jàppale ñu tukki may lancé appel nag nañu jàppale xale yi Tëngéej yi ñun amuñu ëpp lu ñu ëpp doomi Tëngéej yi may lancé appel na la ñëpp a jàppale yéen a ngi taxaw nag mission bi yéen a ko fekkee monsieur le maire Assane Kassé def nga li la war monsieur le maire Assane la nga waxoon def nga ko président Adama Diène la ma waxoon def na ko waaye na bés dafa ala daw me saltige moo doo ngi taxaw tubaar tubaarkàlla borom moo ñi si car Tëngéej la bokk teye Tëngéej ànd ak borom doom ba yële boole kaag conseil notable lébu dama ne Tëngéej nanu defaruwaat Tëngéej nanu defaraat sunu bopp nanu jàppale sunuy doom may gërëm soppa mee ca kaw Naftour voyage tubaarkàlla lu bari la def taw tey jigéen nag ndegam jigéen ñee war a jàppale jigéen ñi kon asatuma góor ñi waaye jaaraama suñu càmm ñi taxaw yal na yàlla fay leen man sama message passé wul ku jàppale si. muy loo xamante ne nii ay yéene la yéene rek moom moo tax muy def noonu mais dama keroog damaa dem ci géej gi xool gisatuma kenn jaar ci géej gi ma xool gis géej gi wéej ma xam ni noo nasur moom moo fa jaar mais seet si leen ko bii ay biyam yomb na te ay biyam original la wóor na boo bëggee première classe ak fépp foo bëgg ci àddina moom dala fay yóbbu Nassour damaa bëgg état bi jàppale la mais état bi dañu jàppale Nassour mii. dañ daan toog ci télé bi jékki-jékki seetaan loolu nga xamante ni moom moo xew ak ni nu koy fajee te yooyu yëpp léegi xaw na manqué tuuti ñu ngi ñaan ñi nga xamante ne nii tamit ñoom ñooy yëngu ci wàll boobu noonu ah ñu bàyyi wàcc xel roy ci ñii nga xamante ni def nañu fi lu ne ci àddina mais tey waa Rio Events ñoom ñoo jël. Euh, li nga xamante ne ni moom mooy attestation fas yéene la kaa jox tey ji ban yëg-yëg nga am Père Sopé waaw d'abord leen nuyu di leen ziar bu euh, di sant yàlla donc di di nuyu àdduna am mbégte trop na mais gis na attestation bi hmm? man ma jël jox leen ko ñoom xamul tax ñoom dañu nekk jigéen ju mën góor parce que lii ñu ni la jigéen moo ko réussir jar na bàyyi xel lu bare bare bare elles sont très braves ñoom ñëpp amul ku ci nekk benn période déterminée lu mu dajul kenn rek war a xalaat leen ne defu ko mais mu boole ñu ñam ñett seen xalaat seen xool seen yéene pour organiser lii kon man en tant que Rufisquois le minimum que je peux faire c'est de les apporter mon concours parce que man Rufisque daf mu koy dundoo